jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne bu ngeen gisee ki ñu dalal kenn du ko présenté ci làmb muy Khadim njaay nekk moom it aussi monument wu caare ndax fan yi gis ngeen euh, monument wu géejawaay ba mu ko jëlee la mu ko wax lépp mais dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wel war Père Khadim maa ngi maay booy maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi sant suñu ñaari waajur di sant sëñ Mountakha Xaadim Rasuul yàlla na fi yàgg te wér Mbacke Balaye si sëñ Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg te di nuyu njabootu sëñ ab di nuyu sëñ Modou Habib Mbacke xalifa Daaru Rahman yàlla na fi yàgg te sëñ Cheikh borom Daaru Rahman tamit yàlla yàlla yokk leeram tax ci barkeen di ñuy njabootu sëñ Abdoulahi borom dër bi yëpp rawatina njabootu borom Touba yëpp yàlla defal leen jàmm euh, fan yi nag dafa am benn lancé ba rek mu bëgg ñu ubbee ndax dafa am ku ñëwoon benn taalib bu ñëwoon ci man indi ay ojo wax ma lu bari ci sëñ Modou Lo Ngaabu Ngaabu waaw mooy bi xew-xew bi dal ci kawam te bu ma dee taalibe Serigne Touba nit ñëw wax ma lu mel noonu mu niru dëgg te du dëgg tamay tamay gëm sëriñ Touba di nooyee Serigne Touba loolu daf may naqari da tax ma meroon génn wax ci wax yi nag bi ma ci waxee après bi ma waxee loolu ba pare ginnaaw bi laa defar samay enquête xam ni lii ñu ko def. tuuma la. tuuma la guñ teg ci moom te xawma ci sëñ Modou Lo lu bon. xaw ma ci moom leneen lu dul ku yiw la woon ku baax la yoroon ay daara mais su la ay nit malmalay li réew mi nag looloo fi am léegi. nit grandeur nit mooy boo génnee wax loo xamante ni yow la ko wax mbokkum taalibe la ay doomam nekkoon fa di jàng mu ne moom jël na ay doomam ñëw wax la lii te muy kilifa dangay xam ni kii lii mu wax ni dëgg la. mais ndeke wax ja day nuru dëgg mais dara du ci dëgg mais après man bi ma defaatee samay enquête xam nga sama benn baay bu ñuy wax seex Seck nekk ci booru booy dem fi ñu jaay biteel yi booru ci ci booru mairie bi noonu boo demee foofu ku ñuy wax suñu seex Seck ak Mbaye Kane Lo bi ma jokkoo ak ñoom wax nañ ma lu clair ci sëñ bi ba tax na loolu maa ngi jégalu ci li ma waxoon ci sëñ bi mbokki taalibe yëpp ngir jëmmi Serigne Touba ndax nit euh, bul dégg rek daal di gëm dégg-dégg dafa war a ndax euh, sëñ Lo mu Ngabou mi lii ko dal man tentation boobu dal na ma. waaw daloon na ma ndax am na benn femme bu defoon loolu. Euh, simee ko ba mel ni ko ndeyam jure. ne dafa bëgg man ma génne ko samay awra. pour ñu sëy ci téléphone. xam nga kon tentation bi ku ne ku jàppal ni rek lii ñu def nii sëñ Lo Modou Ngabou képp kuy sëriñ wala képp ku yàlla may teraanga rek. te ngay jóg wala ngay yëkkoo ci leen rek mën na laa dal. xam nga maa koy koy masaw te incha allah rabi danaa dem foofu ba ci ngaabu toog ak moom nekk ci ginnaawam défendre ko. naa sol mbubbum aboka défendre ko ndax euh, li ma dégg ci moom yëpp. ci wàllu ndax moom xamul sax Ndakaaru. boo dee seet euh, mën naa ni Mboro la doon dem ak tuubaa ak Ngaabu googu diggante boobu génn ko mais nit ñi nag dañ fekk ku baax ñu soppi la lu bon. mais man nag su ma defee loo xamante ni naka sulu noonu la awma ma lu dul génn. taxawaat ne la ma waxoon ci sëñ bi ka ma ko waxoon maa ngi koy woo ba léegi jotuma ko. est-ce que ni nga mel ni nga doonee taalibe ñëpp xam sa bëgg li nga bëgg Serigne Touba est-ce que tey bu nit ñëwee rek tegal la ay audio donte sax kilifa gi moom moo ko def. loolu am na nga teg ci sa bët est que war ngaa génn def communiqué. non du yoon xam nga nit ku dul nit matul. nit matul man sëñ Touba lu ci nit laal rek. ci lu bon jëme ko ci sëñ Touba ma attaqué ma attaqué dal sa kaw. ku ci nekk tamit ci yoon war a jubal def na ko su dul noonu du ma la laax man noonu laay dunde ndax ci dëgg laay dox mais sëñ Ndiomo gàbbu ku baax la te nit ku nit ku nit ku dul juum amul ko nit ku parfait amul xam nga. Euh, loolu ñu ngi ciy tuub bu baax di ci jéggalu. mais loolu bari na léegi ci message yi. ci ci téléphone yi ci sutura bi ñu war a umbante sutura ci suñu biir ku ci nekk génnee sa ayibu morom dalaa gën a loo am ci àdduna. mais bu bon la suñ demee tey jii Sëriñ Muntaxa mi amul luñ ko waxul Sëriñ Tuubaa amul luñ ko waxul maam limaam amul luñ ko waxul. suñu kilifa yi amul wax ma kilifa gu fi ne rek. te amuñu fuñ jaar ak yow ci fu bon. xam nga mais dañ ña koy def ñooy dem ba toqi rek arrêté. xam nga te réew Sénégal léegi jikko yi yàqu na yàqu boo xamante ni loo wax ñu saaga la ndey loo wax ñu wax ci yow lu ñaaw tudd sa waajur tudd sa nangam te yooyu développé lu am réew gisuma am réew mu ay saaga développé man damay wax ni tey su ma la naree wax di la saaga yow ma xam la ma koj la xeex ak yow mais làqut sa ginnaaw téléphone ah làqut sa ginnaaw téléphone di saaga di wax lu la neex nga yaakaar loolu mooy fit loolu du fit non nga baal ma sax ci kàddu yi. mais day toll foo xamante ni. da lay xaw a da xaw a sa xol da cee xaw a laal tuuti. xam nga ndax ñun kenn xamewuñu ay saaga kenn xamewuñu wax yu ñaaw même buñ jëloon lu ñaaw teg ko suñu kaw it suñu fou de toi ndax ñun li ñu gëm yàlla yonent bi Serigne Touba. ak fexe nekk ci lu baax. xam nga ku bëgg baax da ngay saxoog ña baax boo bëggee bon nag àndal ak ña bon léegi nga bon bu la bon téye rek àndal ak ñu bon léegi balaa 24 heures nga bon xam nga sa néeg sax mën nga fee nekk bon kon je pense que yaakaar naa ni loolu am na ci réew mi léegi te nit ñi war nañu changer beneen méthode ñu xool nii daal ku nekk am na ñeen lii dal si ñu am na ñeneen ñoo xamante ni da def nañ leen ko soit daa génnagul wala soit ñu ngi leen koy waajal. vidéo nekk ci dëkk bi bëri na loolu déggul ma la man xam naa ci lu bëri. xam naa ci lu bëri loo xamante ni am naa ci tey affaire sëñ Modou Mountakha bi dinaa ci génn lu nit lu lu lu lu leer loo xamante nit ñi dañ ci teg seen bët woon ni affaire bi ay la. man su ma duggee ci effort su ma duggee rek di gëstu ci ci dara barke Serigne Fallou foo jaar yàlla gis Serigne Touba defal ma ci ndam. te am am na non am na leen lu ma ci xam loo xamante ni. yor naa ko fii sama téléphone daa matagul dama koy bëgg bàyyi ba mu complet ma génne lépp woon ko Sénégal yi. loolu yëpp complot noo complot xam nañ ni sëñ Modou Lo innocent la xamul dara ngi toog liggéey yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba yor ay daaram te ki wax loolu ki ma wax lii man ñëw ci man tegal ma wax ma. su ma la ne woon diw la da nga naan c'est pas ndax kilifa la te te te lay nooyee ñëw génneel ma ci Serigne Touba dama koy gëm yow mii sax li ngay nekk xale boo ñëwee am na loo xam boo xam nga. te ma te ma gëm ni lu nit lu nekk ci man moo nekk ci yow may gëm ni dëgg la mais fekk ay trompe xëy na mais nag euh, échec na ndax ñi ñi def lii ñi def complot bi yëpp man gëm naa ni guddi ñi toog nelawatuñ ndax yenn yi soo ko defalee as gor su suma rawatina nit koo xamante ni bu doon teg benn nit sax dugal na ci bopp nit xam-xamu alxuraan ba mokk nga bëgg ko toroxal nii ba tas addunaam billahi wallahi barke Sëriñ Tuubaa bu la jigee ma xam ne yow doo nit kon loolu parenthèse la moo ci doon dugal. ñu dugaat ci waxtaan wi. am na solo loolu parenthèse la woon boo xamante ne am na solo ci ci ci réew mi yëpp. yéen ñaari monument yi lan mooy seen problème parce que chaque fois damay gis sortie yu ngeen def soo waxee euh, wax ci xaadim euh, wax ci liiru jaan liiru jaan bu waxee jox la dem naa jëli ko sax mu naa ma yi muy jël la moom jiij la la lu ne lu ne jiij la la ko. silar baak ku ba xaw ma Sinerbe lañ koy wax ak cocaïne ak moom lépp la la jiiñ moom la nee na sax damay gñz. waaw mais moom man monument bi ma nekk ñoom Issa Pouye nga ne samay rakk ñoo ñoo jël na ma yaay suñu monument. mais sa digganteeg yàlla liiru kan nga ma sa dégg ban bëri géejawaay nga ma sa dégg ñu ne liiru jaan mooy monument géejawaay ndax benn juboo baa ngi nii mu bëgg a jubóole da cee échec. waaw te gis nga ñun suñu juboo amul télé amul rajo amul dara ñun ñoo waxtaan ci suñu biir ñu xëy gis ñu stade am na wala amul kon maak moom bokkuñu du ci palmarès du ci palmarès du ci fulla du ci fayda du ci fit tolloowuñ lenn. mais jubóole nañ parce que woo na guy gi ñu woo la dëgg de xale yi daj. waa juboo lu ci jar jooy xam nga moom nee na man damay 15 waaw. mais man am na lu bëri loo xamante ni man moom du moom moom liiru xam nga si dégg nga li mu la wax barki dem dégg naa dalaa one fu mu daje dina ma dóor. waaw nee ñu dajee fële nu tëdd bi ñu dajee lamb bu ñu waree bëree fële eh, Jolof. drapeau Aly Ngouille Ndiaye ministre baa ci kaw boobu mooy ministre de l'intérieur. damaa yéeg ba ci kaw ma ne ko yaay ministre de l'intérieur bëre wax nag nit kii nag su ma ko mënee dóor ba mu dee dama koy dóor fi mu dee dama lu ma la ko nëb. Hmm. su ma ko mënee dóor ñu gas ko fii suul ah mu naan fair play fair play moom moo ma ko wax naa ma dañuy fo rek dañoo jógee dëkkuñu fi kon waruñu fee def lu ñaaw mais gis bu ne ko ku tëf dafa dafa yàpp protestant bi arbitre na ko foral mu attaqué arbitre bi ne lu tax nga naa ma foral kon xam nga kon gaayoo ko tuxloo woon non déedéet dañ kaa tuxloo woon xam nga ñemewu ma sama ñàngaay ak ñaawaay bi may ñaaw nii bu may jàkkaarloo yu diw suuf day gën a doon double force léegi bi ma ko xulee mu dem gars yi jox ko loolu ñuy tere loolu ñu may bañ a tudd ñu tere moom ñoom Aliou Seydou ñoo ko jox mu mu am ci ñaari suuxeet mu xit léegi nag bi mu suuxee mu xit dama ko jox sama kanam sax muy dóor ci beneen côté bi. moom moom liiru xam nga ak li ma xam ci moom lépp bi gis <laughs> li ma ko xam. nee na moom xamaloo ko dara nee na moom xam na ni moom fi mu toll nii wax na ma ko moom jël na ay engagement yu leer parce que nee na yi ngay wax nii ci làmb dafa bëgg a ëpp. parce que wax nga. ay Sa Thiès bu bu bu ko bu rëg-rëg bu Sa daanee rëg-rëg nga lekk xaj ak nee na moom yàgg ngaa lekk lool nee na lekk nga kaña lekk ginaar lekk xaj lekk yor nga eggali sax yooyu bi mu ko wax yëpp seetaan naa ko yàgg moom mais yow taxawoo nga weddi ci dara yow daa mel da koo dëggal yow ah, waaw yow noonu déet yow bi mu la waxee yow xam nga ma war nga ko ne ko Khadim Ndiaye jullit la xam nga lamb dina toll benn circonstance boo xamante ni di nga wax mais di nga xam ne yow lii nga wax nii dëgg yàlla Euh, boo xalaatee di nga xam ne ëpp na. njuumte la loolu da nga nit xam nga grandeur nit mooy lan xam nga lan mooy gis nga li may gis nii. man laajal isaam yi gis nga tey su ma la tooñoon nii li ma lay mag mag mag barki Serigne lu Mbakke aw ma am naa am naa ngor gu toll ni ñëw na la baal maax ndax yàlla bëggul tooñ yonent bi bëggu ko sëñ bi bëggu ko te bis day ñëw da ngay layoo sa ndeyjoor kon fexeel ba bul yóbbu àqu nit xam nga fekk na ma stade ma toog ak Ba mu ne ma xar laa xarum tëbaskee ma tax a ànd ak Matar ba lu ne ma wax ma lu ne ma wax ma lu ne ma wax ma ko ba barki démb Balla Gaye xar yi ko xar yi leen kii may Gaston. gis nga ko moom lañ ko may. moom lañ ko may ah. loolu tax mu topp Balla Gaye di Balla moom nekkul écurie Balla Gaye di écurie Waalo la ne dama bëgg mu leer CNG loolu dinaa ko wax loolu dinaa ko wax ministre loolu sax dinaa ko wax ministre bi mu wax ko CNG tey moom amul droit di ànd ak Balla Gaye écurie écurie Waalo la ne ci ñoom la de guerre bii de yaa ngi fàttaliku soog bi amoon te ñoom Alioune Seye ak ñoom Mama gaañu ci moom soog boobu ci la bokkoon dafa def dans le coma 15 jours. bi bi bi bi mu xippee jóg na médecin bi eh, waxal gars yi ñu préparé tuus mi te boobu mi ci hôpital bi. loolu moo ko metti du caaxaan du caaxaan dans le dans le coma dans la nekk 15 jours ñu di ko yóbbu ko réanimation urgence. ci hôpitalu Ndar bi. di ko def ba mu jóg bi mu jógee xam nga lu mu wax. dana monsieur le médecin euh, léegi nañ nañ nañ dem nañ nañ dem euh, wax gars yi ñu préparer tous te boobu làmb ji annulé nañ ko bu yàgg kon man xam nga ma li nga ko gis bi dafa kii de. baaxul ah xam nga ni lii wax yu wax yu ëpp yi muy wax nag wax yi mais ratatatatat mel ni robinet bu ñu ubbi kay xam nga ni kii rek du tayef dama ko dóor daala jorof dóor ko fii. yéen ñaar est-ce que duñ leen waxuma làmb ñu bàyyi làmb ñu tëggal leen MMA ñu tëj case bi liiru jaan ak Xaadim Njaay combat bi jeex une fois pour tout. démb xam nga lu mu def. doomam la ma jox doomam. doomam moom. waaw ma dama ko woo mu jox ma doomam ma ne ko kooka la mu ne papa Xaadim ma ne ko waaw mu ma sa biir bu rëy bi. Hmm? yow la yëkki ni ëppoon sa biir bi doom ji wax ma lu lu ba ba ba soow mu doo ko jël téléphone ma ne ko jërëjëf. lii xam nga élément bi nga wax nii. yow booy bëggoo jàmm nag quoi. Ah. yow yow de prison nga ma yéene. liir bu ñu bëri élément dama koy dóor mu dee di. Eh, gis naa ko ci école ba de muy entraîné lu met. yaa sa digganteeg yàlla. muy taw tuur kay di def ay flexion. bala ngay def mu di ko def di dóor ay góos ko wax kay ba yat ma sax bu seneen wi nee na ma liiru jaan mii mu ngi ci état. ah gis ngeen nag boo yéen man dama leen xàmmeetul gis ngeen di ngeen jëy ginaar ba muy bëkkee yoos wala gis ngeen barki sëñ Tuubaa li ngeen def yëpp da ngeen yokk xar mi karaw maa la ko wax fii nag. moom kay nee na ci làmb du fii. ay ñoom Eumeu Sène ay ñooñu man dama lay wax dama lay yóbbante ci moom fu ma ko jàpp naa ko ñus. balaa combat Balla Gaye bi wóor na yàlla bu ñu dajee naa ko ñus. li may wax lépp li may wax lépp looloo ci gën a tuut fu ne yàq na fa sama der fu mu dem yàq na fa sama der te pourtant moom amoon na problème maa ko réglé. moom waaw problème kër. waaw maa ko yóbbu sama paa bi jëm ñaajo ba léegi comprendre bi Balla Gaye bëri ji ba pare. Hmm. stress bi da koo jàppoon kër gi jógatul kër gi. yaa ngi dégg man maa ko yóbbu sama paa bi nekk jam ñaajo ñu defal ko ñetti njaq pourtant lu baax loolu ma defal ko du ko wax. sept sept mille cent laa fay paa bi. paa sama paa bi nekk jam ñaajo man déggul ma ñoo ko maa ko yóbbu am na benn calando bu mu luwee maa ko yóbbu ba naan paa Hmm? depuis ba combat bi jógee ba léegi maa ngi nii dana laaj ne yasar di jooy jooy sax def na ko paa bi defar ko li mu ko defee fëgg bopp bi mu di ma ñaanal di sukk ñu xaar vidéo yi naa la ko wan. Hmm. léegi après. Ah, ah, sant sant gis nga jamono yooyu bi Balla Gaye bëree ba pare attaqué wu ma. Ah. ndax daf daf maa sant. daf maa sant gërëm ma ndax la ma ko defal këram mënoon na cee tas ndax boo yore sab jeeg yow mënuloo ko dara bu day day yël bagaasam ñibbi kër yëpp am na lekk am na naan mais boobu li mu doon wax buur géwél bu njëkk ba looloo këpp ci koom. ah man laa loolu moom fi mu toll nii dama cee ñëw. di ko jege sax wóorul. Hmm. dégg naa sax. nee la bu ngeen wax ak man ngeen sori ma ndax damaa tuberculose lépp wax na la ko korog. nee na ngeen may may distance. kan mooy wax di sa xët. parce que boo waxee la. Ah, ah. xam nga waaw <laughs> gis nga booy gis nga yéen liiru man liiru wax dëgg yàlla man dama yaakaar ni. sama léegi rek am na lu mu wax isaa léegi maa ngi nii laajal Issa léegi rek am na lu ne Issa ànd nga ak dóorkat bu mag fan yii dañ koo may oto. daa wayaan bañ may kooto moom waaw may nañ kooto xam nga ko may nag. oto bi est-ce que jëndee wu ko États-Unis dawal ko. que xam mu nekk woon États-Unis. may ay xaj lekk. waaw. xam nga moo Ndiaye. moo Ndiaye moo Ndiaye directeur. Séli Madeleine. waaw kooku moo doon moom moom dafa yor ay oto. moom la Wally Seck tuddee woon bi mu nekk boobu concert bi nekkoon états hmm. moo Ndiaye moom ci parrain yi la bokkoon moo Ndiaye moom nag. la liiru Diane di fobeereel këram ak di ko nettoyal buy ñëw mu may ko ay dollars yu bëri ak ay sac liggéeyu fa def fa dara ku gis liiru Diane lu muy liggéey États-Unis rek wax ma tey jii man su ma demoon États-Unis damay futti sama bu teg fële dem dóori waar waaw waaw mais dese naa kàttan xam nga. mais moom wayaan naa wayaan na wayaan na wayaan na xam nga nag noonu duñ ko ci mer ndax géwél la. géwél ndax xamoo ko woon. moom géwél ñeeño la géwél la dafa li mu boole moo bëri dafa boole géwél ak ñeeño xanaa xamu ni moom xalam rek ko dese li nga ko gis ni xalam yooyu xalam yooyu ñoom Masamba Jabare du yor. ak koo mën. moom nangu na ni des fois dina am ay dóoram mais nee na yow foo dóor jàllul rek da ngay da ngay commencé xajamal. nee na dóor nga fi Eumeu Sène. lanjang woo la fi jox la nga génn naan lanjang. non Eumeu Sène sama Eumeu Sène laajal mais Eumeu Sène ñëpp la respecté même Issa Pouye li ko Eumeu Sène di mag mag bu daje woon ak moom tey Eumeu Sène day wàcc otom ñëw nuyu ko dafa am yar na bàyyi ama Sène mi muy wax Eumeu la njàng li ma envoyé damaa tiit affaire yooyu nee na wax nga ko Balla gay tamit Balla Gaye moo gën ci mbëri nee na Gris Bordeaux joxagu la dara moo tax fi mu toll nii Gris doo ngay ngay ngay tagg pour am dara ci moom. dem na ba ci Balla Gaye dégg sax ne ko xaarib oo na Gris Bordeaux ne mi ngi koy wax mais dama nit ku nga yëg ko. man su ma amee lu may jox lu may lu may laaj ma laaj ko sama rakk yi ñoom Issa ak ñoom Ndiol ak ñoom rek rek samay rakk lañ mais laaj leen am tollooguma foofu. Hmm? ku ci àdduna. Balla mosulaa jox eh, Balla nag moom nit ku wax dëgg yàlla nit ku baax la. non nit ku baax la wax dëgg yàlla. non mas ma ma moom wax dëgg mas nañ seq teranga xam nga man du ma suul jëf. mas nañ seq teranga contre Yékini te ba tamit Balla wax dëgg yàlla. nit ku baax la gisuma ci moom bon daal gisuma ci moom ak bon xam nga xol bu rafet la yor wax dëgg yàlla mais dafa dafa ànd ak magam moo xamante ni xam nga ndax liiru seytaane day jaxase rek. Hmm. waaw léegi na am na mbër moom jaxase ak Balla Gaye sax fan yi waaw. mais fan yii nag am na mer am na gën na laa mere parce que fii nga dem kër euh, ci kii Mansour Ba bi di fa taasu naan ay. ku def lu baax xaw ma kenn du ko wax nee na yow li nee na looy taasu ku la taasu. loolu du taasu dama ne ko Mansour ngay def lu baax te kenn du ko wax. pourquoi ça loolu rek laa wax loolu du taasu. taasu mooy na nga def yaa ngi gaañ yooyu man du ma taasu kat góor laa. jantal men laa. non di way man mën na maa bàkku te moom mënta bàkku su ma neexoon jël micro bi bàkk Mansour ci mu ndënd yeeg yëpp mën naa ko. waaw. waaw yow per ba kuy sa bàyyi per ba per ba. ah mais baax rek am solo booy gis nga àdduna gis nga àdduna man xam nga li ma li ma gën a dimbali ci sama àdduna ti peur personne aw ma kenn ku may ragal am naa nag ñu may rus mais man aw lu may ragal aw ma lu may tiit barki Sëñ Tuubaa Mbàkke te kenn di amul fitu ngeen doon 15 personnes 30 personnes koj ma di ma am loo may wax amul kenn amul fitu ñoo maanaam du question dóor maanaam man egguma ak personne am naa personnalité boo xamante ni du ma egg foofu nit mais liiru jaan bislaahi bu ma ko jàppee balaa combat Balla Gaye bi. ragal naa stade nag combat bi nag bu demee dañ ko war dañoo war a alamaan Lirou Diane. Ah, non ci écurie la bokk. bokkul écurie Lac de Guiers écurie Balla Gaye écurie ba. rakkam mooy bëre écurie Balla écurie Balla ci école de lutte Balla bokku ci. rakkam mooy bëre. mais rakkam mooy bëre mais léegi xam nga dañ doon wax ni. tey bu Issa Pouye mais bokk écurie Thiaroye man ma bokk beneen écurie même lu Issa nekk sama xarit aw ma droit ñëw ànd ak moom. kon nag moom. dafa war a dem ca ikir waalo ñoom waalo xam nga dafa war a dem ca waalo ci ñam Aliou Seydou ak ñooñu foofu la bokk mais fi ne nii fàtte ne ñëpp ndax Balla Gaye day dóor rek. léegi nag bu bu làmb jotee mu def ko léegi yow te CNG bi jël ci benn matuwaay yow ban matuwaay. maa koy fekk ñu ko jël sama rotukaay mu mu jóge foofu. moom jour làmb ji damay bàkku si ndax Gaston dafa ma fay pour ma bàkku si su ma bàkkoo ba pare gis ku mu ànd ak Balla maa ngi dem ba ci cimukaay li jëlee ko fa bu bañee ma au gendarme yi ñu jëlee ko fa mu yëg kaw turbine ndax loolu mooy yoon ba pare dañ ko war a alamaan 2 millions xam naa ne boobaa sax du am lu mu ko fayee ndax buñ ko alamaanee 2 millions dé bu demee wax déggoo kornement dajeeg benn kornement <laughs> gi non liiru liiru du dem korog benn géwlaa ah. la wóor na Sëñ Tuubaa Mbàkke mooy ñëw di ma ñaan ma yëkkati ma làmb yor 2000 jox ko ko daan ko léegi liiru géwél bi daan na géwél bi ma ci liiru mu ne ma noonu liiru jaan ñoo bokk ay géer dégg nga li géwél bi wax. ne ma ñoom ña ay ñoom ñaar. géwél bi di roote moo dàqaroon ñëpp. amul kilifa gum xamul fii ci Ndakaaru nag de root rek la mën nag sëriñ si nag li mu ci xam lakk du ko jeexal. day dóor rek. kum toggal tubay te ween ngemb laa lay xaar. xam nga te man dama ne ko. maag yow dañoo bokk école mais bokkuñu classe man première laa ne yow nga nekk CP. du ci côté du ci côté ci benn genre boo xamante ni tolloo nañ ko mais nag làmb ji boo ne ko si ngeli mu ne Xaadim Njaay mais dina dakk ci nii wala ci jël naa ci décision. dinaa ko ñus il faut mu ñus ko. tey ñu ñëw fekk la fii ci Fatick drapeau Matar Ba ministre des sports Assane Ndiaye tuddee ko ko euh, sa diggante ak moom seen relation yi ñaar lan. Matar ministre bu mel ni Matar mi ngi doog am Sénégal mosut am Sénégal. Hmm. waaw barki sëñ Tuubaa Mbàkke. Matar sax man su ma seen sax doomu Caaroy lay ne ay eh, bu ma ko mënoon jënd indi ko Caaroy. déet hmm. eh, bu ma ko ko Caaroy mun aw ah déet. waa Fatick ñoom gënuñoo bëgg lu baax di ñun ñëpp kii doo kii doo comprendre sax ndax ministre ministre la wala wàllu xoole bi mu jël nañ coupe du Afrique. Mm. ñu ne déeta waay meilleur entraîneur. Mm. déeta waay ballon d'or deux fois. Mm. meilleur joueur. kii raafale na lekk kaaf yëpp di Matar équipe Sénégal raafale na ko. ci ayu Matar ba la amee di. ci ay ayam la amee de ah am de. dafa aayul gaaf ministère yi fi jaar yëpp dañoo ay gaaf kii nag aayul gaaf. ministère yi fi nekkoon kii ñëpp la ju jamale Issa mi du ma bàyyi ma fen mbër yëpp ay xaritam lañ sportif yëpp ay xaritam lañ Matar ñëpp a ko bëgg ñëpp ko bëgg yàlla na jàmmam yàgg moo tax xam nga ni man ak li ñuy sonn yëpp ñu boole déplacement ak dérangement jóge ba Dakar ngir ñëw sargal ko ci drapeau bi kon Matar Ba lépp luñ ko defar rek mérito na ko lépp lu lu mu am ci sport rek bu ñëwagul yàlla na ko yàlla indi ci barke Seydina Mohamed Assane Ndiaye nag def lu rëy def grandeur. xam nga tout récemment lañ fi ñëwoon ak Jamaïcain tout récemment ñëwaat nañ fi ak. ak Assane Ndiaye sama doom baay kon nga xam ni lépp ay xéewal Matar Ba boo nee Matar Ba ne doomu ndoy Pape du Fall nga xam ni ñoom moom Pape du Fall nii lañ def du benn lañ du ñaar muy gor paab du Fall moom di gor kon Matar Ba tey bu ñu àndee man ak Issa ñëw dañoo ñëw ci suñu bés waaw maa lay jaajëfal maa maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal jàmm réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm jërëjëf